Le mhm. problème mhm. l'éducation éducation parentale mhm. éducation physique et éducation spirituelle parce que si nous temps lay évoluer temps sa papa sa yaye, ñoom nous été yar nous la civisme nous nga nekk ñu tabax xam nga ku baax nga sa paam nii sa nangam nii ñu monte la jaay la maanaam defar la ba nga ba nga nekk nit bu parfait maanaam éducation de base bu baax mhm. loolu la ñuy wax éducation parentale mhm. éducation boobu dañ ci échec mhm. benn ñaareel bi muy éducation physique éducation physique bi parce que dinaa ñëw ci sama ci sama thème éducation physique bi liir compter écrire da nga ko war a man nii arabe nii français da nga ko war a man si làkk boo ko mënee da nga war a man lire compter pour mu évoluer mhm. pour mu tabax société wala pour mu tabax nation bu mu bokk mhm. foog mu mën lire compte écrit mhm. moi lay jox ay savoir donc éducation bobu éducation physique bobu dañ ko échec donc nga ñëw ci ñetteelu éducation bi muy éducation spirituelle parce que nit ki gannaaw bu la sa papa sa yaay yaré ci biir kër gi nga dem ci école bi manam état jangal la euh, bo joggé fofu dafa am walu ngëm-ngëm walu pas-pas walu pas-pas bobu nak si religion bo manti nekk rek mhm. ñom li leen tax a moy mhm. l'éducation éducation spirituelle mhm. éducation spirituelle boobu nag tamit dañ ci essek parce que nit dara essek ci ñaar yële nga ñew ci spirituel bi mu défar la mais éducation spirituelle bi li tax mané dañ ci essek parce que tabaxatul nit tey masala rek da ngay dem si benn jàkk ñeme ñoo bàyyi say dal ci biti donc ana ana ana xam nga xam nga kii nekku fi tonton bi montorom bu rafet bii ñemewul jàpp teg ko à côté ñu jël ñu jël ko mhm. donc éducation spirituelle bi si lu mu ñu doon tabax si lu mu ñu doon yóbbu mhm. maanaam tabax ñu defal ñu ay jikkoy kawe ay jikkoy màgga mhm. loolu dafa dañ ko rëcc donc Sénégal ki koy tabax man li ma gëm li ma gëm laay wax Sénégal ki koy tabax foog nga ñëwaat éducation bi éducation de base maanaam parentage parents yi foog ñu jël seeni responsabilité te loolu timit li ko animé pauvreté si la bokk pauvreté si la bok parce que bo gisee yenn parents yi tamit mënatuñu téye seen doom def ci li si war ñaaka bi mo metti Sénégal mhm. lolu dinañ ci ñëw ci kanam mhm. mais mhm. ki di tabax Sénégal man sama gëm-gëm tonton wax nako Sénégal kenn mënu ko tabax te jaaroo si éducation xam nga muy éducation parentale bi muy éducation physique bi muy éducation spirituelle bi lañ ci wara tabax donc suñu cité religieuse yi aussi ñom ñoo ñu wara dimbali ci tabax nit ñi ñu nekk ay nit parfait bo xolé à l'époque de mag ñi Mak ñi ñu tabaxoon baax nañ mooy ñoom tonton mhm. mag ñooñu ñi ñu tabaxoon baax nañ léegi ñun ñu ñëw ba si ñun ñoo problème donc y a un problème y y a un problème parce que léegi si tey jàngalatuñu tabaxatuñu nit defaratuñu ci yow ay valeur yoo xamante ni bo boo génnee di nga jombal sa yenn bopp di nga jombal sa yenn bopp mhm. Mhm. te beneen bi tamit man gawma arxuraan nit da koy jàng 20 ans quoi baxara ba naa si pour man nga nekk si benn daara plus de 20 ans dafa gudd man jàpp naa ne baxara ba naa si fa dëgg neex yàlla Maroc mu ngi koy réussir Turquie mu ngi koy réussir euh, yeneen dëkku lislaam yi ñu ngi koy réussir man jàpp naa ne loolu moom mën nañ si jàngal nit si deux ans nga nga man ko bind ko mokkal ko di ko doxal mm-hmm. Mm-hmm. mais tey si benn xale si benn daara plus de quinze ans si pour mu wàccee kaamil pour man si trop mm-hmm. même si éducation physique bi aussi temps bi ngay def si jàng ba am bac nga vingt cinq ans de carrière nga koy jàng pour un salaire de deux cent mille deux cent cinquante mille pour man tamit dafa xaw a doy waar donc loolu laa bëggoon cof tuuti si li góor gi wax mooy éducation bi daal uh-huh. muy spirituel bi muy uh-huh. muy muy muy éducation parentale bi muy mm-hmm. éducation physique bi mm-hmm. pour man képp kuy liggéey Sénégal si mm-hmm. yooyu nga war a si yooyu nga war a tabax d'ailleurs ñun suñu association sax xam naa bu ñu ci duggee ñun si yooyu la ñu gën a liggéey si école yooyu lañ teg genre de centre formation lañ teg donc si yooyu la ñu gën quoi. exactement ah, ci kanam foofee la ñuy ñëw dugg ci c'est vrai mhm. que côté euh, côté mhm. éducation dafay répercuter wu waat ci mhm. société bi. Euh, parce que ça euh, ay parents bu ñu faussé ci yow éducation de base. pour pour ñu récupérer la dafay dafay daal di compliqué. parce que ndax comme Nico qui kii en fait éducation dafay commencer ci ça ay sa ay parents ci biir kër gi. loolu wax éducation.